asalaamaaleykum sunu mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di dalal si émission bi diwaan yi ak gox-goxaan yi. émission tey bi nag dañu siy ànd ak waa RADDHI réseau africain pour le développement intégré waxtaan ak ñoom si seen mission ak seen objectif si loolu demoon nañu ba Saint-Louis Ross Béthio seet seen programme bu ñu fa tëral pour jigéen ñi avant ñuy terminer par yéen Bambilor. Tiwaawan Pël pour wax ci problématique foncier bi ñu seetaan reportage bi. ONG RADI di ab kuréel bu lëkkalee ay doomi Afrique di ay kàngam ONG RADI ñu taxawal ko ci atum 1985 lépp ngir yokkute Afrique jubluwaay gi di xeex ñàkk ñàkk yamale ak it ñàkk xam-xam doomu réewi Afrique yi mën a suqaliku muy kenn ku nekk wala mbooloo jaarale ko ci tërilin bu ñëpp di bokk toog waxtaane ko. waaw RADDHI nag ñu ngi ko créé 1985 booba temps dafa fekk ma nekk euh, directeur adjoint OFADEC OFADEC ñun ñoo ubbi bananerie yi nekk Tambacounda yëpp man ci son bopp ci ñu ko installé la waaye dañuy demoon ci jamono yooyu comme installation la woon le programme alimentaire mondial daf ñu daan jox ay nourriture pour paysans yi su ko defee ñoom ñu mën a gas di defar ay canal di def yooyu Euh, te di am lu ñu lekk en même temps léegi nag suñu planté seen bananeraie ba mu commencé jur lu leen dundal ñu arrêté nourriture bi léegi nag ma waxoon ci ak directeur bi ne ko nii lañ ko war a doxale pour que ñii bañ a dëkk ci tàmm ñu di leen di dundal fokk ñoom it ñuy béy parce que ay béykat lañu mën nañoo béy lu ñu lekk en même temps que ñuy béy bananeraie ñuy béy lu ñu lekk su ko defee première année ñu jox leen cent pour cent nourriture deuxième année ñu jox leen quatre vingt euh, soixante quinze pour cent année bi ci tegu ñu jox leen cinquante pour cent et ba ba muy jeex comme ça ñoom ñu bàyyi seen xel ci ne yàgg-yàgg ñoom ñooy mujj dundal seen bopp. ba ñu d'accord ba commencé liggéeyee noonu léegi mu jékki-jékki rek ni moom d'accordatul dañu leen wara dundal di leen jox ma ne nag loolu day tax nit ki wékku définitivement du jéem du góorgóorlu. pour mën a yore boppam te loolu amul benn njëriñ donc ci la démissionné bi ma démissionné nag la créer RADI te RADI ñu ne suñu système liggéey mooy kenn du gàddu kenn da góor góorgóorlu ñu jàppale la soo yaafusee ñu bàyyi la fa nga toog duñu yenu kenn di dem ak moom. gis-gisu RADI mi ngi tegu ci yokkute goo gis nit ëppale ci ñu jagleel ko la ca ëpp ñu tàggat ko ba xelam di dal ci wàllug politique ak am-am. di waxtaan ak moom di ka yee ak di ka jàngal fexe ba ñuy jàppalante seen biir ñépp yamoo di it tàbbal seen loxo ci li ñépp bokk moom ak di ka saytu saa bu waree. ci suñu politique dañu ne fépp fu am ndox nit mën na fa def économie liggéey fa dara dund ci am ci bon santé donc ñun suñu politique yépp ci ndox la basé fu amul ndox ñu wuti fa ndox fu amul. Euh, rivière ñu gas su amee dex ñu mànq ci dex bi indi pour béy comme ni ñu doon def ci banaanare yi voilà li ñu jëkk a def nag mooy fii ci jegem euh, booru sànjara li ñu gisoon ay villages yu bëri yoo xam ne am nañu forage te amuñu sax ndox bu ñu naan léegi nag ñu jënd ay pompe moto pompe def ko foofu defaral leen huit hectares pour maraîchage ñuy pompe ndox bi eh, ñuy arroser di naan en même temps ba eh, revenu moyen paysan bi yeggoon cinq cent mille francs par an léegi nag ñu commencé yaafus dootuñu ñëw arroser seen bopp di yónni ay xale yu am douze ans ñuy arroser wala samedi dimanche ñu toog seen kër bàyyi ay nag ñuy dugg ci toolu maraîchage ñun ñu nekkoon ñu ferme ca la ñu fermé yépp ñu dem suñu yoon yëngu-yëngu rat yi yépp dafa tegu ci jàppale taxawu programme yi askan wi nas defar ko ba mu baax bëgg ko tamit jëmmal su ko defee rat yi ànd ci ak ñoom di leen dimbale ci wàllu jumtuwaay xarala yi ak tàggatu muy tax askan wi mu yitteel mën a wéyal seen programme rat yi di yëngu ci wàll wu bare. ñu créer euh, le FOVAD le Forum des organisations volontaires africaines de développement boo nga xam ne amoon na ay membres dans 36 pays africains. yoo xam ne ay association ay ONG du Mali de Guinée-Bissau de même de Tanzanie ñu ngi ñu ngi woon ci biir et le bureau était composé de seize membre de seize pays différents et euh, ci noonu lañ leen doon wane aussi euh, façon liggéey bi RADDHO di liggéeyee pour ñu ñu ñu sàkk ci dara daal ngir gën a xam liggéeyu projet promotion économique membre yu union des groupements partenaires du radi dans la zone nord muy kuréel góor ak jigéen yuy liggéey ak radi ci bët gànnaaru réewum Sénégal ci ndimbalu programme québécois de développement international mi ci tàbbal xaalisam tax na ñu dem seeti leen. waaw programme boobu nag dafa ñëw fekk euh, radi doon liggéey liggéey bu am solo ak jigéenu ñu ñuy wax euh, fédération nationale des unions de groupements du radi fédération boobu ñu ngi ko sos ci euh, mars 2010 mm-hmm. mais laata boobu kuréel yi nekkoon nañu ci région yi ñu leen di wax ay union des groupement partenaires du radis mm-hmm. ñu nekk ci ñeenti région Dakar Saint-Louis Thiès ak Kaolack mm-hmm. am fa presque euh, lu mat euh, dix mille membres ak trois cent cinquante cinq groupements di intervenir ci treize zones treize zones yi da def boo demee Kaolack ñeenti zone la Thiès ñeenti zone Saint-Louis ñetti zone ak Dakar ñetti zone donc fu si nekk ñu ngi intervenir aussi bien en milieu euh, rural qu'en milieu périurbain donc programme boobu bi ñu ko dëgmalee en 2009 la ñu commencé woon di euh, dem ak ñoom ci wàllu euh, autonomisation waaye bi ñu koy def tamit dañu euh, ab dañu def li nga xam ne moom la olof di wax nànk-nànk mooy jàpp golo ci ñaay maanaam di dox ak ñoom nànk di xool naka la ñuy def ba nga xam ne kuréel yooyu nga xam ne ñu ngi ànd ak rajo depuis plus de 15 ans ci programme juridique yi nga xam ne ñoo ci ñoo fi toppante woon te ñu leen doon dooleel ci wàllu droit maanaam ñu xam seen sañ-sañ jigéen ñi xam seen sañ-sañ ak seen wareef ñu ne kuréel yooyu toll nañu ak ñoom foo xam ne. il faut ñu seet nu ñuy mën a demalee seen bopp loolu moo indi woon euh, programme démarche d'autonomisation progressive des UGPR ak jàppale développement IP donc bi ñu ñëwee ba 2009 ñu taxawal programme bi dem ak ñoom ba presque 2010 développement IP dellusiwaat ne léegi comme euh, demal sa bopp. yombul noonu ci wàllu koom ak wàllu politique li ñuy def mooy dañuy feexee nu ñu gën a doolelee mbirum koom bi ci leen nag euh, ministère des relation internationales bu Québec euh, ñu soumettre fa benn programme programme bi jàll programme boobu nag moo indi PQD yi PQD yi nag mu ngi intervenir ci zone nord bi fi muy intervenir boobaat léegi am nañ fa juróom benn périmètre ndax xam ngeen ni zone nord bi jigéen ñi li ñuy njëkk li ñuy gën a yëngu ci wàllu mbay la am nañu ay suuf waaye amuñu moyen amuñu ay jumtukaay donc programme bi bu mu ñëwee daf leen jàppale ci mbirum euh, jumtukaay jox leen ay semence ba nga xam ne euh, mun na ñi doon yëngu ci wàllu ceeb ak ñi doon yëngu ci mbirum maraîchage juróom benn périmètre yooyu mettre l'accent sur maraîchage bi ak euh, activité risicole kuréelu jigéen ñooñu di yëngu ci wàlluk mbayuk ceeb rafetlu nañu taxawaayu radi tool ya ñuy bayee ñu defar ko ba mu baax ñu tabax fa ñeenti bassin de dissipation jox groupement ya nekk ca Ross Béthio ak Richard Toll ñaari moto pompe ci ndimbalu projet bi ñu joxit juróom benn groupement ay jumtuwaay ci wàllug mbay muy fukki brouette 201 ak ñaar ñaar fukki pulvérisateur yu fukki litre ak juróom-ñett fukki roosekaay yu plastique ak ñaar yu fukki litre juróom benn fukki pelle yu ron ànd ak manche joxaale leen jiwu ceeb maraîchage ak xeetu engrais ba muy àndal